noona ñi ngi fii buntu kër Ada déggal loolu ey waaw maasu borom kàddu baa ngi noonu mu ngi wis rek di wër leget la yor def ci xorom ba mu fees waaw waaw lu weex lay feeñ te yére ba xaatim lan ko def cëy lii cëy lii cëy làmb ma ngay delluwaat ci biir maasu ma ngay delluwaat oh. waaw waaw ay ca Mansour waaw waaw ñu jàkkaarloog bunt bi dafa mel ni xele baa ngi ñëw mi ngi ñëw aadaa ngi ñëw borom Ndakaaroo ngi ñëw aada Ndakaaroo ngi génn waaw waaw baa nga noonu waaw maa ko moom dalal na xali supporters yi dalal na xali supporters yi macha xale baa ngi noonu Ada Fass la xale bi macha allah la kii moo daan yéeri de moo daan faru jar daan dorma daan ardo daan rawul daan caatu ngewel daan bébé bismi tàkkusaanam ak jokkel kenn du ko fàtte kii moo daan Tapha Mbeur wante tàkkusaanam ak Coly Faye fële ca arène nationale loolu histoire ba léegi daf koy fàttali kooku mooy Ada Ndakaaru Ada Fass borom Fass Benno maa la ko wax cay lii waaw waaw ma ngay dem ca supporter ya nee nañ ko yemal fii nee ko fii baax na nee ko duggaatal ooy aada ooy aada hey aada Fass hey aada attention xale baa ngi yooyu oh. yaram daw na yaram daw na ndey yaram daw na ndey mais doom ndey ñaari kàddu rek may ñu bëgg na fa fort maa la ko wax war a daan Zarko conférence bi nu mu demee karim ñun instant yi ñun jeex na bu yàgg. Zarko dañ koy rey rendi. billaahi dañ koy rendi lu musu am si lamb Zarko. Zarko dugg nga ni rubu Zarko billaahi wallaahi. pare nañ si lépp pare nañ si lépp noonu à la ñuy andi. duma la daan dañ lay dóor ba nga tëddal sa bop buñ la dóor ba nga daan yàlla bu ma jëriñu. ku gis. coow la bu ne woon coow kenn du ñëw coow la. coow li dañuy ñaan yàlla mu jig ñu te yàlla na ko yàlla may ndam sama doom la man te daf ma bëggal boppam man ma jël sama xol bëggal ko ko di xalaat suñu président Mbaye Diop ak jiiliñ ak jiiliñ ak jiiliñ jiili jiili Dieng ñu war a ñooñu ñoo créé écrit bi maa ngi leen di sant di leen gërëm te xam ne dañu war a ñëw pour delluwaat li ñu moom moomuñu dara ñii ñu ñëw yëpp moomuñu dara ñun la ñun ñooy membre fondateur yi bu mbër demee ba toll fii tey c'est grâce à nous bu ñu ma woon gannaaw bàyyi ma rek man kenn may dang-dang yi dama yore njaboot war nañoo mën a ñëw li ñuy daw ci seen njaboot noonu laay dawee ci suma njaboot kon lii nga xam ne maa ngi ko téye di leen ko téyel war nañ mën a fonk war a mën a respecté pour ñëw ñu liggéey quoi wasalaam rek waaw mais yarama tàng rek deretu fama deretu Fass beeg Ndakaaru bi gayen mooy loolu sànq ba tey yëngatu leen aara ngeen yëngatu yéen ñëpp ngeen yëngu waaw mais dama xam ne dafa yeewu reetaan lu am dañ koy sante yàlla di ñaan yàlla may ñu ndam waaw Zarko moom jamonoy abe jamakun Senghor la bu ñu ko jàppee mu yàgg na rek non yaxu démb yàgg daan te élection yi passé barke Serigne Touba Mbacke. expiré. bu ko ñurub ñarab moo xam ni booy bi gonay faramba ceela cuko cuko naanaa dàq daw gën a gaaw du daw te ku daw mu ree la barke maam Bamba. loolu yow. waaw loolay noo tengo tiempo para hablar no hablar mucho porque yo voy a ganarte. plateau. borom li may gée te ñembele le fils de Tay Shingalé barke borom Touba. yàlla nañu yàlla suturaal di woo gaayam nag ci non à la violence xam rek doomu ndam li génnul Sénégal. waaw ku yàlla faral yaay daan mais yàlla ñu yàlla faral yàlla suturaal ñu su bay seen naa Mohamed di woo ñëpp kilifa diine yëpp gars ñi ñaanal suñu doom ji xam nga mooy loolu di bëggee nag mbëru Fass yëpp ñëpp a ngi ci ginnaaw aada barki alxuraan muy ñu bokk Fass Ndaga waaw ku ñëw ñu ñëwul seen xol ngi fi comprendre nga waaw liggéey na lu ñu war a liggéey ñu nekkoon ci contact yeeg yooyu xam nañ ci dara di ñaan yàlla may ñu dem ci kaw ajuma jàlloo wala yàlla ñu suñu borom sutura yàlla mi mën yàlla ñu kàttanal ajuma nee na lu ngeen xool ku moom du gis ñun nay xool mais moom du gis. non mag la ku yàq set kaa daan de jamonoy abbé jamagun Senghor loolu démb la de. yàgg na bon jamonoy abbé Zege la barki borom Touba. léegi ñun ñu ngi demee Sarr jiitu la ngeen fekk ñu. waaw yow bu guusee rek weeral waaw. Abakara Arafas maa ngi lay ziar. maa bi. ñu ngi sant Serigne Touba bu wér. mel ni yegg si nga ci ci ci ci côté bi gën a métti ci bës bi. waaw dañu naan dañu naan rek. d' abord dañ naan jërëjëfe Serigne Touba jërëjëfe borom Touba jërëjëfe Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rasoul gàcce ngaalaamaa Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni waaw mën naa ne daanaka mën nañu yegsi nañ ci cappaandaw gi daal kom ni nga ko waxee bés bi nekk bés boo xamante ne ni ni ko Fass bëggee Grand Yoff bëggee ko noonu yéen ñi nga xamante ne ni yéen a géré supporters si ñaari côté yi taxawaay bi ngeen ci am ban taxawaay la doon waaw ànd suñu mbër mu jaral ñu rek instant bi affaire de jaralante la rek kenn ku ci nekk di wan tey sa mbégte ak tax xam nga ci taxawaay si lépp loo xamante ne tey danga nga koy jéem a pour mbër mi saa borom defal ko ndam ci loolu lañ nekk xam nga nekk tamit ci li nga xamante ne tey xam nga gis nañ population population Ndakaaru bi yëpp tey si soutien xam nga ci dooleel surtout jeunes yi nag man jeunes yi moom wax dëgg yàlla seen taxawaay dafa rafet te tey boo ñëwee 7 heures du matin yow tey gisal nga sa bopp gis fi lii lépp am xam ne nag kenn waralu ko ku la mbër mi Ndakaaru moo taxat moo waral daal mu demee nii daal Baye Fall bi. koo wax rek dana la Ada Fass wax waxoo ko tiset Abakara lay wax seen diggante yéen ñaar fu mu jóge waaw boo nee Ada Kara ne boo xoolee ñaari sept lettres la rek sept lettres la fii sept lettres la fii boo ko boolee muy quatorze. maa ngi moom dafa am leen loo xamante ne xam nga dafa jiitu. kot la ah waaw ay kot la daal te xam nga sunu wasila sunu yaakaar Cheikh Amadou Kara Mbacké Noreyni dafa dafa ne seede yàlla fii Roi des mu ngi fii. taam nañ ci yaqin Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. waxoon na ko mu ne moom këram am na roi des arènes te yàqamtu ñu si dara nag ñaan nag sunu doomu muy sunu waay di sunu mbokku taalibe di sunu di di jàmbaar si ñun wallaay asim ñun la gars yi di gis lu nur ko lu ñuy sonn si moom mais ara lu muy sonn si sama jëmm ji mu ëpp fop kooku mënu ma ko fay si lenn barki Cheikh Ahmadou Kara Mbacké Noreyni. kon li mu ne woon Fass jot na mu am roi des arènes la. te ñun ñi ànd ak moom tam gëm nañ ko ndax wallaahi azim nekk na ci li mu war a nekk nekk na ci li mu war a nekk nag laa la wax wax de ci li mu war a nekk mu ngi ci te nekk na ci barki si Ahmadou Kara Mbacké Noreyni day avisé day avisé kaboy dawal engrais nag te sénégalais yi xamuñu loolu. li nekk li ñuy wax naan Ada Fass entraîné wul daa topp tali bi te keroog bi mu simee ko si shooting bi ma gis ko nee naa o baax na. day avisé kaboy dawal engrais xam nga waaw du du du nit boo xamante ne nag nit buy neex a comprendre la quoi. sangu rek waaye nelaw. waaw non jegewu ko sax barki Serigne Bamba wala Azim bu doon nelaw non ñun ñu yee ko mais wax dëgg fa yàlla duñ lan di ko doole di ko gën a motiver mu ñuy gis wala Azim loolu lañ mun ci moom. joxante rendez-vous ci kanam sant. waaw si kanam bientôt incha allah yàlla ñu yàlla may ndam ñu ngi woon nag fukki penc juróom-ñaar yëpp l'ensemble. zone Dakar bi yëpp ñu ngi leen woo ñi tàllal suñu loxo di leen ñaanal ñu ñaanal seen doom Baye Fall bi aada yàlla may ko ndam lu sedd guyu ci lu gaaw noonu la demee Baye Fall bi jaajëf. tamit nelawul. ah ñun de ñu ngi nii ngaan xoolal suñu bët yi <laughs> ñu ne waa Grand Yoff comme nelawul <laughs> xoolal bët bii bët yi nga gis fi. Sarr neen day xeex de. ah Sarr neen daa xeex. kooku la. Zarko Zarko mu ne la xeex si. ñu dañoo entraîné ba ñuul kukk. dafa xeex si laa wax. dafa xeex si. non Zarko mag la du ñu xeexam moom barke sëñ Bamba booy bi du xeexam moom booy bi gisul Zarko sax bay xeexam moom na koy jàpp tër ko nànk magum jëmm ñu ay xale yu ndaw lañu ar du koy téye tër ko nànk am xeex bu bi du bari si làmb lay jeexee waaw na Zarko mënul bëre Zarko waxuma ban mbër. kontaan ngeen ba pare. waaw kontaan nañ si jàpp. waaw moom incha allah si kanam di nga gis loo mosut a gis si aara. parce que pare na si côté bi yëpp. lim ñu woon ci bëre yëpp dinañ gis lu ñu warul gis. leneen musul gis. leneen dina feeñ lu bees. loo xam ne doo kenn du ko yaakaaree si moom tey dina feeñ. ci bëre wala ci xeex. si bëre si doole si xeex si lépp. yee. kon waa Fass Benno ni ñu ñemewee Zarko daf maa jaaxal. Eh, naka moom. loolu nag. naa lépp jàmm. pare ngeen. pare nañ bu baax ngeen a sol seen ah, pare nañ dañuy jëli nam li ñoo xam moom. Zarko du pousse du passe. billaay booy booy bi xale la nag da ko ëpp doole. billaay lamb ngeen yaakaar mu jeexee ci bëri. ah déggoo lamb ji mun na jeexee fu ne. waaw mais mais du ñu bëre lu yàgg de. te aara dina ko daan bi incha allah. lu yàgg lu yàgg de billaay wallaay. dama gis mbër bi lu mu entraîné na. la ma si gàttal waaw pour wa talaahi. du dañu gis dañu gis ko gañe ko. ay magu Arafas nu ñu bëggee Arafas. li ngeen la woon. mais dañu am la joie au cœur ndax moom laa dafa neex a faral. booy bu am respect ngi ni comme dimanche bi tey rek xool ko si kanam. waaw avec la joie au cœur parce que maam Thierno. boo déggee ñeneen ñi di wax yenn waxee si moom. yow magam lu mu lay def. waaw mais mais mais dafa am ñoom dañu soxor am ñoo ne duñu duñu duñu pire waa waaw mais seuls les imbéciles ne changent pas tamit waaw mais nag ak ak ah. ñu ne aada moom waa jàppal ne waaw jamais dire jamais rek never say never waaw coodu jëpp day baax waaye suñu borom suñu borom bind na seen naa Mouhamed waaye moo nu gën fuuf amul lu ñu waxul si moom Mouhamed nii Mouhamed naa Mouhamed ne Mouhamed fii Mouhamed faa Mouhamed fële ñooñu ñëpp ko cëppe si suuf barki maam Thierno Ibra Faati waaw ca kaw ca kanam rek. nit ñi tey waa Fass waa Grand Yoff lu leen di mhm. waaw lu leer mais def nañ mobilisation bu nice instant bii nii. instant non à la moom la ñuy woote yow tamit boo gisee ni gars yi def ay ultra yi nii nice nii filmer booy nii gis nga def ultra bu nice. waaw gis naa Abakara di ci communiquer. demee moom moo géré côté boobu sax waaw moo defar booy waaw xewal bu bu bu yaatu daal. waaw noonu la demee nag champion ngi nii tamit. dinaa ñëw si non non à la violence. booy dañoo déggal ñu seen gànnaay rek xamuñu violence. ñu seen grand yi rek wallahi azim xamuñu violence aada gone bu ndaw la amul benn problème yu ko sax moom si violence dafa yaru koo xamul la di nga sikkal aada te làmb mooy demee loo xam ne de dafay baaxoo coow nii lu la ñu koy sikkal te booy ku leen di yemloo si ñoom ñëpp dañuy yem booy ñooy dem si jaam ak salaam sante solu ci sa aada yaa gars yi ñëpp blouson xale bu ndaw sept ans sax dafay sol blouson aada Fass ko ñu no à la violence nañuy woote Grand Yoff Fass benn la ñu leen ñaan yàlla defal leen jàmm ñu dem seetaani làmb aada am ndam wasalaam nag nga am waar. way sant yàlla. noir nga def de. mooy yoon. lan mooy waral noir bi waaw mooy. tàngagul de. mais noonu la demee lii sama kii la. sama lug la sama lug la. Arafas Zarko. ah bu Faas Arafas sama waaw mooy loolu Arafas loolu kay bul sax wax jarul wax sax. lan moo la yëkkati tey yow li la yëkkati yombul de ci tey lu ma yëkkati victoire rek barke Rasulullah victoire kese ma yëkkati. am nga ci yaakaar. bu baax a baax. xam ngeen Zarko. waaw Zarko du lan barke yàlla bokkuñu yoon sax kii dafa nekk booy buy dem bokkuñu sax dafa nekk booy bi dem nekk si yoon. barke yàlla bu ko Zarko daanee amul sens foog booy bi daan pour dem fekk ci gars yi parce que booy bi mun na bëre am na doole macha allah. Garaaf dañoo jëlee combat bi dënn est a ngi ciy bàyyi xel. non waa Garaaf dañuy xaar Garaaf xamuñu mbër mbër fii la fekk baax faas. làmb fii la juddoo booy bi da ko namp juddoo si barke Rasulullah tey ba ba tey mu doon li mu doon man mii di wax yow maa ko yób maa koy kii si mbapat yi yóbbu si mbapat yi bu muy nekk ba booy bu ndaw barke yàlla musul daanu si mbapat musul daan lu ma am si drapeau kenn xamul nu mu toll am na lu mat ay trente drapeau fii si kër gi. mbapat la ko jëlee lépp ci mbapat la ko jëlee musul daanu mbapat. barki Seera Fall. billaay walaay. kon tey am yaakaar la. Moustapha Gaye si boppam xam na kuy booy bi Moustapha Gaye si boppam xam na booy bi bu baax. barki yàlla yàgg na ma wax mënuñu ko booy bi. mën na ko booy bi waa Fass ñoo ko soxla. doomu Fass deretu Fass mooy doo si moom juddoo Fass yaroo Fass ne ko booy bu ndaw xale bu ndaw 24 ans. barki yàlla 5 ans la def si lamb lëmbe lamb bi. barki Seera Fall booy bi mbër kaamil la. maa wax loolu man caamaas bu faas. jàmbaar. naka waar. sant ko tedd ki. waaw bala ñoo wax dañuy nuyoo sant ko tedd ki sant borom daaru Noreyni mi suñu wasila mi sama turandoo suñu yaakaar tey ak ëllëg man la Thier dëkk Thiès mais maintenant maa ngi faas. Aada ma tax a jógee Thiès. Ada Fass rek la ñuy topp topp ñu keneen waaw. Zarko nee du ngeen xool kuuta da leen di dóor. sarko mbër bu màgget la day xaar bu loxoom jógee mu bu loxoom jógee suuf lañ koy fore. loxoom jógee ngeen yor. bu loxoom jógee suuf la jëm maa la wax lii sarko yooyu muy def gaay ay daw di song nii mënul bëree. yaa neexul jékku ci biir géew de. booy bi làmbatewul la daa daj Ada champion la xale la booy bu mu taxee fi nga xam ne kii champion la ñun nag ay champion lañ Ada champion la bàyyi war na borom sikóor yi day dem xale la cest à xam nga xale ak mag bokkul booy bi dafa nekk ci yoon si yoon la nekk kenn mënu koo téye xale la am na doole war na borom daaru nooree na mi ma yaakaar. jeex na bu ci kanamee ñu dajee sat. Zarko maa ko yobante lii nee ko ceer mu faas dëkk Thiès dagay xaar. booy bi da lay duma da daan ngay dof dof lu booy da ngay ñu wax ak yow fu teg sax affaire de ay affaire ay pël fuuta xam nga ndarañ nga xam nga lekkatu jaabare nga da ngay xaar ngay dof dof lu nii tey nga dee dinañ la andil lu weex xat ngay dof dof lu gaa yi la gën sonn fuuf dañoo sonn gis nga ñu teer rek. nga ñëw fi. ñëw naa sànq léegi de. Hmm. waaw gis nga Ada. gis naa waaw. gisee en forme ba. Mhm. E, nga yaakaar waaw. père. maa ngi lay siyaare. delloo gis nga aada wala gisagoo. gis naa ko bu baax. noo ko gisee. macha allah laf cat. billaa wallaay. aljuma jàll lu mu andi daanu. aljuma jàll lu mu andi daanu. ñun aada rek la ñuy te bisu mbégte la de tey ndaxaaroo aaye barki alxuraanu karim aljuma jàll lu mu andi day daanu loolu maa ko wax day xaar ba mu bëri doole. waaw ndam rek waxuñu leneen lu dul ndam ndam rek lan gis du leneen lum mu xaar day du am du mbër faas lan ma waxuñu leneen yàlla na yàlla defal jàmm rek ñu dem jàmm ñu jàmm am victoire mu rëy ñu feete ko nag fas yéene jëlit waa de Sarène ba amul ragal tout sasar